mbokk yi ñuy seetaan ci seen télévision Tivaouane TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiite ci nuyoo bi xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ziar ak njabootu maam Seydi Hadj Malick di nuyu porte parole famille Seydi El Hadj Malick sëriñ Papa malik Sy ak mbooleem euh, ko aju ci xadara Cheikh Seydi Hadj seen télévision Tivaouane TV mi ngi noonu fas yéene ak yéen ci ay programme yu bes tax fas yéene àndandoo yéen ci ay plateau ak ay direct ci lépp lo xamni rek xew na ci tariqa sa sayyid al Hadj malik rawatina njàngleem lépp lo xamni rek amna ci hadara suñu maam sayyid al El malik Malick TV dina len ko won ci ay conférence ci ay gamu ci ay waxtan diine yo xamni hadara bi amna ko waye lépp lo xamni ni njàngaleem suñu maam sayyid al Hadj malik la muy mom suñu maam sayyid al Hadj malik wala ay domam di Serigne Babacar si suñu maam Cheikh al Hadj Mansour suñu maam Cheikh al Hadj Abdoul Aziz dabba ak seen doom yu tedd yi Serigne Mouhamadul Mansour si borom daara ji Serigne Moustapha Jamil si Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum euh, ñoom ñëpp ak Serigne Abdoulaye si Al Amin ba fi ki fi nekk tey di xalifa bi Serigne Babacar si Mansour ak Serigne Papa Malick si dina leen indi seen njàngale seen waxtaan seen lépp loo xamante ni aju na ci wàllu diine ak ci wàllu tariqa bi rawatina. wàllu réew mi ci wàllu social Tivaouane TV dina leen koy indil waaye dina leen indil tamit ay programme yu wuute yoo xamee ni njariñu askan wi rek lay doon njariñu diini ji rek lay doon waaye njariñu tariqa tijaan rek lay doon kon nag mbokk yi ak xarit yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew seen télévision Tivaouane TV ñëw na ànd ak équipe boo xam ni ñu xarañ lañu te fas yéene lépp loo xamante ne am na ci wàllu diine ak bi dinañ leen ko woon teg leen foofu seen baaraam tuuti ñu ñëw rek incha allah daanoo àndandoog yéen ci lépp loo xam ne neex na leen ci wàllu télévision Ah.